wérse garçon berse bu ndar te ñu rey ko l'observateur nee nañu léegi tey ñu am takk bu ci ki def jëf jooje ubbil yéenekaay bi gendarmerie bu jam ak yore bi jàpp guñu ci kenn waaye am na koo xam ne yéenekaay bi nee nañu li leer ba leer danañu ko woolu mu di bu góor bi doon génn ak dem si yàlla sëy na bu ka jàllo ndax nee nañu moom waa ji woo na xale bu jigéen bi ci téléphone am quelques minutes laata muy réer téléphone xale bu jigéen boobet l'observateur mi ngi ñuy wax ne enquêteur yaa ngi koy wër waaye gisaguñu ko ñu gis ci xët mu njëkku libération mbir meneen mu yémeeti benn femme bu ñu naan Mariama Mané moo jàpp ñaari doomi jëkkëram jàmm kenn ki ñetti at lam ka ci des am ñeenti at mu jël leen jëlug buum yeew leen ci ba ne ngodd di leen dóor ak a saaga filmé yëf ya jël vidéo bi yónnee ko yaay xale bi mbir yi siiwee ci la ko sandarma yu ñoo rëy demee jëli journal bi nañu moom ndaw si nee na li tax mu def loolu moo di yaayu xale yi sëyatul ci kër ga tas na bu yàgg waaye terewul fa mu toog la toog di yëngal ab sëyam mortal combat mu di defante bu rëy Sud Quotidien nee nañu kuye bu séntu ko ci élection législative yi ñu jëm professeur Mamadou Diouf bu Columbia Université ko dëggal ci yéenekaay bi ba di fa wax ne du yomb ci pouvoir bi du yomb ci opposition bi question de vie vie ou de mort lay doon ci ñaari wàll yi wàll wenn mu di pouvoir bi seen jiit di Macky moom la journal L'As xëy ci xët mu njëkk ba dañuy wax ne li ñu naan potum biir ne ca la Macky toll ak waa kër mi ca Fatick ñi amul lu leen neex ci ñi mu tànnoon jiital leen ci élection locale yi weesu ñoom la dajale woon doon waxtaan ak ñoom laas nañu te du woon moom rek ndax soxnaam di Marème ci jamono ji nga xam ne Macky ma nga doon dajeek responsable mu liggéey réew mi direct ci news ne ñu booba fekk na fuuta toj na ba mokk rumbux maire bu njum di Cheikh Omar Anne moo fa doon sargal jigéeni njum yi waaye wane na fa ne doole doxul jàmm démonstration de force pire yéen pire yéen kaay bi na nañu moom lañ fa gis mbooloo mu bari ba jéggi dayo mbooleem fu force vive nekkoon ci fuuta rek bàyyi nga la nga jàppoon dem wuy ji njiital nouvelle dynamique de l'alliance pour la république journal bi nañu bu njum ministre enseignement supérieur moo jiite woon liste coalition Benno Bokk Yaakaar ci département bu Podor ñu gàñe fa lu rëy moo waral ba ci législative yi ñu jëm jigéen ñi nee nañu nawoon fa woon nañu ko jiital ñu toppaat ci ginnaawam sursoi nañu teddungal débboo la Cheikh Omar Anne woote woon ca Fuuta waaye la ñu fa gis ci mobilisation ci jamono joo xam ne ay weer rek de suñu digganteeg élection député yi li muy firndeel moo di ceex na da njum wane na signal bu fort ci ne kenn du ko jam naani ca Fuuta journal L'Info Tribune Vox Populi L'As ak L'Observateur ñoom it xëy di dëggal xibaar bi ca Fuuta googee ba tey ak Vox Populi ne ca bokki jawee jigéen ña fa nekk te fare ci majorité bi jox nañu bopp kii di Abdoulaye Daouda Diallo ca wootee législatif du fa sedd ne am na gu fa taxawal convergence patriotique pour l'émergence suñu te waji di Lamine Gueye jité ko ñomit it xel bu baax tribune xey di bàyyi xel ci fukki at yi Macky Sall def ci bop Sénégal li mu ci jangé ba tënkee ko ca modi ci dix ans yi Macky Sall Sénégal mission non accomplie modi di Manam bilan maanaam li ñu doon xaar ci lu bari coordinatrice nationale des enseignants de l'Alliance pour la République di Maïmouna Sissoko Khouma di ñu wax ci journal La Tribune mbooleem lu askan doon xaar ci président Macky Sall ba tax ñu falon ko 2012 ci fukki at yi mu defagum ci bopp Sénégal wane na ne mi ngi ciy def lu am solo ne pont bu Foundiougne bi mu ubbi keroog rek doy na ci firnde ndax pont la boo xam ne yàgg nañu ko bëgg yàgg koo jooy ki mu tudde pont bi di Nelson Mandela Maïmouna Sissoko Khouma ne dafay wane fi mu teg Afrique teg fa africain yi teg fa unité africaine africain yépp lu ñu yàkkamtee xam bokk na ci fan la Sénégal di mujjeek Égypte ci qualification coupe du monde Qatar 2022 entraîneur équipe nationale yu tàng jër yu supporter lu saf sàpp lu di ñëw ci stade Abdoulaye mu ne na verte son rouge gi takkar naa si ci grade yi lise ko nañu el tactico di Aliou Cissé mi ngi teg pression supporters yi ngir ñu summi west yi tekki karawaat yi sol may équipe nationale bu Sénégal ñëw stade supporter équipe bi équipe ba kenn ca footballkat yi mu di Abdou Diallo lise ko ne nañu forfait na élongation adducteur lam ba tax dina toog lu mu gàtt-gàtt ñaar fukki fan yu mu dul football Eumeu Sène defati ko bombardier maa nga ca lamb ja sunu lamb C'est Seine de créole